suba lay tàmbali dina am ay célébration yu ñuy def ci bés bi yëpp ci euh, église yëpp yoo yi nga xamante ni di ngeen fa dem euh, ci euh, jëwu fidel yi dinañ fa tef cendre doomu taal ngir daal di leen fàttali ni dañoo war a wàcce seen bopp ndax ci poussière la ñu jógee te ci poussière la ñuy dellu si waat ndey di met coowal imam Sall mu mu nekkoon loo xamante ne kàddu yu mu yëkkati woon fële ca Walfadjri groupe de presse bi jéggalu waaye itam imam boobule. waaw imam bi comme rek. dinañu suul wax ji rek mu jeex parce que affaire bi ñaaw na ba pare métti na te moom même Imam Sall sax man dama koy masaw ndax xam naa ne euh, lu toll nii xajul ci doomu aadama te xam naa ne su ko leeroon ni ni lay demee euh, du yëkkati kàddu yooyu te di ñaan yàlla rek xadi ñu ñëpp dañuy wax ci micro yàlla nañu yàlla ba nga xam ne du ñu am faqas faqastal làmmiñ donc di ko masaw bu baax a baax di masaw tamit communauté catholique bi parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar xam nga tey boo revisité histoire Sénégal nga gis ni ki njëkk a nekk premier président du Sénégal chrétien la te ñoom dañ fi nekk euh, minorité entre guillemets donc loolu dafa dëgër te Senghor kan moo ko jàppale woon Serigne Fallou Mbacké mi ko ne woon Senghor seng ca kaw kon xadi fii li ko tabax ci wàllu jaloo islamo-chrétien dafa dëgër te dañu nekk exemple dans le monde donc wax ji yàlla na fi yam yàlla bu mu fi amati na ku nekk jox sa morom cër ku nekk la nga gëm nga gëm ko nga bàyyeeg sa morom li mu gëm te loolu aussi tamit dafay law sax ba ci ay idées yi nga xam ne nii moom la ñuy nemmeeku muy ci réseaux sociaux yi muy feneen Mansour na gëm li mu gëm idéem la dama ko koy nangul dama koy respecté man aussi dafa am lu ma gëm il faut ñuy respectante il faut ñuy xajontante il faut ñuy supportante donc lii nañu tourner page bi te wax dëgg yàlla erreur yu mel nii bu ñu ko nañ ko éviter parce que ñun dañu nekk exemple dans le monde te loolu dara war a ko yàq moo xam nga euh, kilifa bu waxee loo xam ni ci biir réew moom ko waxee ñëpp jàpp nañu ni dafa barastiku ci làmmañ moom déjà kenn du ko ëpp yaraange surtout nga bokk ci famille bu baax nga jàng ba ñuy wax imam nga comme ñi mu metti noppi nañoo baale te wax nañu leen metti foo mu ko waxee itam jéggulu nañu jàpp naa ne nañ ko gàtt rek wax ji jeex ndax moom kilifa la euh, kilifa du juum waaye nag ci làmmañ dong lañuy ñuy juume euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni doomu aadama làmmañam mooy gayndeem bu ko booylee mu lekk ko ci débat yi nag werante yi mun nga juum wax loo xam ne xëy na du li nga programmé pour wax parce que xëccoo dafay am tiraillement dafay am donc man noonu laa ko jàppee dugalu ko ci côté bu négatif boo xam ni loolu moo nekk objectif am njuumte am na njuumte nag dañu koy baale vraiment mu gàtt ñu wax euh, ci juróom fukkeel ak juróom-ñetteelu édition euh, assemblée général Caritas euh, Sénégal dañu ko doon ndax képp naka noonee responsable ONG caritative catholique bi daal di ci porox ndoll ngir amal ab déclaration ngir tëjeeko ko travaux yi muy sàkku ci askan wi ñu def seen kéem kattan bu ko defee ñu aar suñu ay forêt ndax la muy ñaaw lu moo di exploitation bu jéggi dayoo bu ressource forestière bi nga xamante ne nee nañu moom mooy yàq écosystème bi ñu ond ceek Garig Ngom Ba bu Caritas Saint-Louis. wax ci tëggum garab bi nga xam ne moo nekk ci yenn région yi. moo tax nag karitas euh, seet xam ne ni fim ne nii suñuy dagg même bu dee ñoo ngi saxal te waaye ñoo ngi continuer di dagg bu yàggee ah suuf si dina in am ay jafe-jafe moo waral bu ñu dajee. ñu daal dina daal léegi lenn la ñuy ñaan ñu arrêté maanaam euh, daggum garab bi na mu gën a gaawee immédiatement sax lañ ci wax euh, ak euh, bant bi nga xamante ni bant yi nga xamante ni ñu ngi koy jaay te kenn joxu leen autorisation wax ci waajtaayu 142e édition bu appel bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi xew-xewu diine bu mag bu ñu namm amal ñeenteelu fan ak juróomeelu fan bu weerub mars ngir waajal ko nag direction bu Free Sénégal àndoon nag délégation dem seeti xalif généralu Layeen yi ngir yóbbu seen jàppale bu ko defee euh, xew-xew boobule doon ab réussite ñu ànd ceeg Fatou Lay mbay Diop Sion Boufri jiite ko directeur général bi daal di nag génn ci ab ndaje xalifa général des Layènes Serigne Mouhamadou Mokhtar Lahi ab nag njàppaleem la ñu indi ngir nag waajal téeméer ak ñeent fukk ak appel bu Seydina Limaamu Laay Al Mahdi day jaadu ñu ñëw seet si euh, xalif bi pour wan leen suñu mbëtte pour accompagner leen si événement bi première façon mooy apporter suñ contribution aussi financière ñun dañuy jël aussi luñ mën suñ doole tamit indi ko. événement yu mel nii nag utilisation réseau bi dafay am solo loolu ba tax na nag directeur bi di wax ne dinañu am réseau bu mucc ayib. réseau bi war na nekk si am am ak mën-mën yu am solo. maanaam du am benn coupure de réseau qualité bi baax internet bi baax. chargé de mission bu xalif bi di Serigne Diallaay fetlu li nga xamante ne ñoom waa Afrique def nañu ko. suñu wéjur sunu xalifa Seydina Mamadou Matar Laay dalal. Euh, directeur général Mamoun Bengu Fri indi ak ndimbalam ci ndimbal li sedd na xol dal na xel mais li ci ëppoon solo mooy kaddu yu rafet yi nga xam ne boole na ko ci ci ñeenti fan ak juróomi fan ci weeru mars bi ñuy dëgmal ñu dund lii di appel Seydina Limamou Laye ba tax na Fri bëgg rek wane boppam daal di nag indi app njàppaleem euh, ci préparatif yi Euh, chargé de mission bu xalif bi di Serigne jàllaay moom xam leen na ni mbooloo mu takku dinañu ñëw te dinañu jóge fu nekk li ko waxal moo di édition bile ci lañuy ñuy fàttaliku ah, ndem si yàlla xalif Baye Abdoulaye Thiaw Laye waaye itam moom mooy nekk appel bu njëkk bu xalif bi fi toog ci jamono ji ñu déglu ko. événement boo xam ne sunu xalif général de Layeen bii di Pape Modou Seydina mooy premier événement am et puis muy événement bi gën a màgg suñu kër ñu koy def ak mbégte. mais ñu koy def ak tristesse mais tristesse bi tristesse la rek maanaam ak wéetaay la parce que yàlla mënuloo mu jëlal la dara nga naan da nga ci siisoog leneen bon mais loolu ñaari ñaari leen boole daal parce que dafa jigeyaatu trop mais nag comme que ki ki ki jiitu loolu moo doon moo doon waxam mooy lu mu deman demee rek gëm leen yàlla ngeen ngeen doxal li nga xam ne moom yàlla bëgg ci ko suuf donc luñ ci gën a def mu gën a baax rek moom fu mu nekk mu gën a kontaan. nee naa waajtaay bi ñun amuñ ci amuñ c'est que nag booy gàttunu ay nit foo nga am appréhension ndax nit ñi bu ñëwee suñu dellu dinañ delloo ak xol bu sedd loolu ñu ñaan suñu borom mu may ñu képp ku fi ñëw rek booy dellu nga delloo ci alhamdulilah rabbi alamin fédération bi ëmb artisan Sénégal yi ñoom lu ñu bëgg mooy ñu dàkk élection chambre de métier ñu nam amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bu weeru mars artisan yi la ñu bëgg mooy ñu njëkk fee teg yi jiitu bokk na ci ñu auditer euh, fichier bi waaye itam def bilan matériel ak immatériel chambre des métier bi euh, fédération bi jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi rax nañ ci doole ni am na effort yu baree bari yoo xamante ni groupe Sénégal def na ko donte des na ñoo cee compte rendu bu Mouhamed Diop fédération bi ëmb artisan wu sénégalais amal na nag janagooy tasul xibaar ngir sàkk ñu andi ci nu mu gën a gaawee coppite yu ñu waxoon ci secteur bi laataa ñuy amal élection yi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars mënuñu comprendre ñu war a valider SNDA bi président joxe si instruction 7 avril conseil des ministres ne nañ ko valider au plus tard le mais mai ñu toog ba pleine campagne ñu wax ne am nañu élection bu ñu war a jaar le 27 mars. ñu ngi sàkku it ñu auditer fichier électoral bi ak it soppi processus électoral bi. ñu bëgg ñu xam ne am na élection yoo xamante ne bi ne ñun pare wuñu pour dem ci parce que fraude électorale weesuwul ngay defar ay carte yu nga xamante ne bi ne fichier bi ñu teg gouvernance lépp ay fraude la. artisans yi nag maire bu futu di sàkku ñu gën a jox seen secteur boobee gëdd ak i programme yu am solo yi ñuy dénk ay nit yu am solo te mën koo yor ndax jàpp nañu ne artisanat lu am solo la ci xëyum ndaw ñi.